asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki i yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ku ci nekk rek wàccuwaay bala yàlla wàccee ñoo ngi la fay teg ca nam war ginnaaw si loolu le dañu leen di fas yéene xamle ak ku yàlla may ci li mu yëm koo xamante ni bii dañu naan rek wedd gis bokk ci ñu gën koo xam ci Malick Ba boroom àll bi waaye tamit moom Malick Ba borom àll bi ku yàlla may xarañteef la ci li muy yëngu di ci jëflanteeg doomu aadama yi di ci dimbalante ak ñoom lu jëm ci wàllum càngat wala sax jigéen ju taxaw koo xamante ni bi dafa bëgg am doom wala koo xamante ni bi ak juboo la bëgg ci digganteem ak borom këram wala koo xamante ni bi yéeg na ci yaramam loo xamante ni bi bokk ci Malik ba borom àll bi dina ci jëflanteeg moom te nag weddi gis bokk ci wala sax koo xamante ni bi muslaay moo koy yëkkati ndax ku ne xam ne ni làmmiñ ak bët lu am la nga nekk sa bërëbu liggéeyukaay la ngay yëngatu nga bëgg mu jëm kanam wala sax nga nekk sa bërëbu liggéeyukaay ku ne xam ne ne pexem noonu dafa yaatu nga bëgg pexem noonu du la fa mënal dara Malick ba borom àll bi bu jëflanteeg yow incha allah da nga gis ni xam-xam rek woo yow mi nga xamante ni bii da ngaa yëg ni say mbir dafa kale soo ñëwee ci Serigne Malick ba borom àll bi la incha allah dina ko décaler dangaa nekk di jàng toll ci jamonoy examen Serigne Malick Ba mi ngi ciy dimbalanteeg ñu baree bari ñoo xamante ni bii kat xawma lu ñuy réccu li waaye du ñàkk jëflanteeg kii di borom àll bi waaye tamit xam-xamu boroom àll bii di Malick Ba làmbe na ba ci sport bi bépp équipe bu bëgg a gën di jëm kanam ci ay victoire yu muy amee wala ay trophée yu muy gagné wala sax nga nekk joueur naam waaye nag li ngay rêve ëllëg mooy nga signé pro fi ñuy dégg grand yi la fay dégg borom àll bi la Serigne Ba mi ngi ciy dimbalante ak ñoo xamante xamante ni bi li ñuy réccu mooy li ñu yéex a xamante ak borom àll bi ndax kër Serigne Malick Ba ku jëflante ak moom xam ni jëflante ak ndaanaan ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni bi boo jokkook moom nga waxtaan ci ak moom dina la ko defaral comme ni nga ko bëggee ndax boo déggee sëñ Malick ba boroom àll bi xam na ñu ni àll li mu ëmb bari na kon xam-xamu borom àll bi le di sëñ Malick ba li mu ëmb bari na kon ku bëgg ci yii wala bokk yeneen yu dul yii nga woote ci bile numéro 78 446 69 33 78 446 246 69 33 kon nag wa billahi tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ci maam jàmbaar ay des ka waar wa yàgg nga jiit naa naan jiit nga démb jiit nga tey duudu yaay kati <laughs> waaw waaw salaamaaleykum axlu làmb Fadama ngi nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm yaakaar naa ne tey jii li ñu dégale ci bés bi tey jii wartu ëpp kenn Baye Balla Mboup maa ngi nuyu Boucar maa ngi nuyu baay ma ñoon mi nga xam ni tey jii yaakaar naa ne jafe na tey jii ci loo xam ne nii tey ji nga indi ay journaliste ci biir kër dal ak ñoom ci sa chambre jox leen ñu lekk séddaloo leen lépp loo xam ne nii tey jii nit ñee leen ko waroon jox Baye Mandione moo ñu ko jox tey mm-hmm. mu nekk benn acte boo xam ne nii tey jii axlu làmb yëpp war nañ cey jàngatee te xam ne làmb nit dootu ci defati lu bopp lu Falaye Balde defut nit dootu ci defati lu Papa Kane defut nit dootu defati lu kenn defatul ci làmb làmb fi làmb toll dafa dépassé yeneen niveau yi ko nit ñi jëlee journaliste amateur mbër supporter benn lañu il faut nit ñi am benn esprit de dépassement boo xam ne dañ koy am ci biir nit ñi te ji ma ñoon bu ko neexoon mu ñëw ñu daw ñu di yaakaar dara lu ñaaw ci nit ñi waaye dafa wàcce boppam wàcce boppam ci axlu lamb yëpp tey ji ñun ñëpp ñoo nekkandoo ndogandoo ak ay jabaram ak ay doomam ñun ñëpp ñu nekkandoo benn li ma ciy wax rek ki ñu boole tey jii war réew mi yëpp xam nañ ko muy structure bu mag bu di Moguel Events yaakaar naa ne Moguel Events moo ñu woo le 15 maa boole Baye Mandione Zarko boole am a Neex ak Lac Rose boole doomu Dangul Jordan boole Baare Ndiaye bu Faas ak Cobra boole Arbouri Njambaan 2 buuse buuse ak Alaaji Mbay rek doy na palmarès ci làmb loolu lépp tey ji am na promoteur yoo xam ne bu ñu ko amoon tey ji yaakaar naa ne combat bu nekk dañ koy bootal ay combat yu ndaw moo gét jël bés boobu yëpp def ko ci benn fan yaakaar naa ne jël ticket supporter def ko benn ticket bi gën a ndaw def ko ñetti téeméer kooku wàccoon ak làmb mm. bëgg na ku nekk gis boppam ci bés bi waaye tey ji li ñu indi fii mooy structure bu mag boobu di moo gën events yaakaar naa ne nga tëgg làmb ju toll nii tëddee ko journée de la jeunesse mm. ànd ceeg Pape Souley Bathily ànd ceeg suñu papa Asbekaay Mbaye ànd ceeg Modou Mbaye ak ñoom ñëpp nga xam ne tey jii ak Pathé Sylla nga xam ne tey jii ci structure bi la bokk ñun ñu ñëpp ñoo ci gën a nekk Fadam bokk na ci gën a ndaw ci structure bi axlu làmb nag tey jii moo gën event si tax mu woote la 15 daa bëgg ñu dellu si làmb fa mu nekkoon nit nag mënta dem ci làmb te àndu site internet moo tax keroog bi mu moo woowee première réunion ci tradition mu ne ma Fadam li ma gën a bëgg mooy képp koo xam ne site nga da nga sa bopp ci bés bi képp koo xam ne site nga te nga daan ñëw di liggéey ci làmb buñ la ko xañ ñëwal nga am la nga daan am ci làmb jël la nga daan jël ci làmb yóbbu sa kër foofu la làmb tollu tey jii ñu ngi dalal tey jii ku mel ni baay ma Mandione ñëw këram ànd ceeg si internet yëpp ànd ceeg ak lu làmb li ñu koy wax rek tey jii Baye yaakaar naa ne bëri na bés bu nekk ci wàllu làmb mm. bari ci démb la bëri roi des arènes Gambie daan ko ci avec manière yaakaar naa ne diggante Baye Mandione Zarko nekk na combat boo xam ne bépp ñu koy xaar mm. yaakaar naa ne Zarko ku a bëre na la mm-hmm. waaye Baye Mandione ku mës song ci tàng fekk fekk fa loo xam ni jaaxal na la mm-hmm. mu nekk mbër moo xam mbëru tànk la nekk ndaanaan boo xam ne la ci làmb waaye daa lu ma jaaxal ci combat bi Zarko ne ne ma Baye Mandione ñi mu ta xeex ak man ba ma ko waxee Baye Mandione daa xonk cur mu ne ma bilaay Zarko di ñaan koor gi ñu dugg ngi ñaan tey gi lépp lu ci waaye di ñaan yàlla na ko yàlla nangu ci waaw tey jii nga xam ni bésu maam Cheikh Ibrahima Fall la sóoru maam Sey Ndiaye daabay maam Sey Ndiaye borom jege ma ca saam góor jëgg bàyyi lalla Fall la ñu ngi ñaanal tey jii lépp lu waaye ñaan ci bés bi yàlla na ko suñu borom nangu ci barke weeru koor bi fada ma ngi ñaanal ñëpp jàmm di leen jox rendez-vous yéen ñëpp le 15 mai ci diggante Baye Mandione Dione Sarko ci kattanu yàlla gaay yi waaw vraiment xam nga may nuyu yaa ngi dégg yàlla na ko yàlla sama borom jàppale yàlla taxawu ko moo xam lu bëgg yàlla na ko yàlla sama borom defal ndax def na la maanaam li Fadam de wax rek moom moo ci am dafa monté ay combat yu doy waar yoo xamante ni xam nga koy combat taxaw sax ñu naan mbëri dañuy turisé wala lii mais combat yi mu taxawal benn mbër boo xamante ni daf see bokk ci biir euh, combat yi doon mbër moo xam day turisé amul ama neex di turisé si combat lagros di turisé si combat yaa ngi dégg ñoom albure njambaan dëkk Cobra Baara Ndiaye Jordan doomu dàngu yaa ngi dégg muy Zarko di man ba ci ci euh, alaaj Mbaye Boussey kon maanaam tëggul culture c'est quoi kon yaakaar naa bis boobu day neex may wax sénégalais bi nan teew mooy gërëm nag ki nga xamante ne wax yàlla moo ko nekkal fii muy Souleymane nit ku baax nit ku dal nit ku teey nit ku jub mu ànd ak suma papa Bekaar Bekaay Mbaye yaa ngi dégg ak ku ci mel ni Fadam Touré yi ay suma grand pâté suma ménagère yaa ngi dégg peinture yàlla na ko yàlla sama borom ar yàlla sàmm ko ménagère mat la moo xam lu bëgg yàlla na ko yàlla defal yaa ngi dégg ñu encadré nag moo gën moo gën yëpp events yëpp yaa ngi dégg maa ngi nuyu ñëpp xam nga ndax combat bi li ma ci wax ba mu taxawee yàgg na sa jamonoy coronavirus la woon yalla dogal nag coronavirus jaar fi daal daal di lépp lépp domaine yëpp arrêté woon léegi nag bi corona bi si diggante bi naa fi combat daan moom fi combat daan ba yàlla dogalaat tey ñu war a moom du ay avance ñu joxaat naan ñëw leen bëre du ay combat yu bees yaa ngi dégg combat ngor ak kóolóore la yaa ngi dégg ak bañ a lekk riba ñëw lekk nga xaalisu jàmbur bu yàgg da ngaa a bëre combat bi loolu la moo tax muy nu ku am ngor mbëri si yëngu yëg ñun ñëpp kenn ku ci nekk ñu waxtaan mbëri dawal compréhension ñun ñëpp xam nga ñu nangul ko loolu ñu oyofal affaire yëpp ba yàlla dogal nag kenn ku ne yaa ngi seen préparation ñuy préparer la ko man ay combat xaw ma laal ay kii man du ma jàppee de man man daal ay dimanche bi di ñëw daal lay jàpp ay samedi bi ñëw mais ay la nangam la man du ma jàppee barki yàlla. 15 mai xam ñëw na jàpp xamoo ban la. gay ni billaahi wallaahi mais ay fàtte samay combat damay fàtte samay dati combat man daal bu ne dimanche bi ñëw dellu see wala dimanche bi ñëw waaw ci laay xam nag dëgmal naa bis. non adversaire comme man yow gay ne nag yow gaw naan ko war ba war ñey looy war tam ko war man man dafa am lu waroo wane yaa ngi dégg dafa am lu wax fan yii yëpp mais ñu bari comprendre lu xamuñu fa may waxee waaye man mii sama jëm ji man ma xam nit ku ne boo wéete di nga xam sa bopp yàlla na ma yàlla lafal cal ma yëg sama bopp loo xamante ni wax dëgg yàlla gëj naa ko yëg yàgg na lool yàlla na ma yàlla sama borom jàppale lafal ma cat yaa ngi dégg wax baaxul daal mais li ci kanam raw li bët déggoo li ma la wax retour ak tourné retour bi yëpp day day na waat déggoo li ma la wax retour bi day retourné waat dañ toog xaar jàmbaar xam nga la mooy problème bi tey man damaa dépassé fu mbër di waxee ak man yaa ngi dégg ñu ànkaat ay baama joon mbarloo kaag mu ñëw bëree xol ak yaa ngi dégg wax ko lu la neex yaa ngi dégg mu ñëw bëree xol ak nekk ragal ngaak nekk ñi ma woo xeex ak man ak zërko ko fekk man mu tiima man ndambaan ñi ma woo xeex ak man wala ñi ma woo jàkk wala ñi ma woo sama kaw man moom lan lañ ko war a wax man ba may dox ci koy mbër boobu moom bëreegul moom te ñi ma man ñoo ko fit gën kaa nekk jàmbaar fuuf te ku ci nekk bor bi neefere mu la gëdee da ngaa taxaw fële ak koo a doon ba ba dalee takk ngeen ba léegi génn samay combat benn mbëru ñu ne bàyyi ma nga day dox nañ ci kawam mu ngay an yar jéggi na saako jëliwaat nañ ko loolu su ma naree fekk ci làmba barki rasulillahi ma tekki sama ngemba bu dul làmba sax nit doomu aadama laa rëkkilal ci kaw suuf pour mu leer kon na Zarko yooyu mi wax noonu fekkee loolu tubaab bi naan stratégie xaw ma da tubaab bi stratégie xaw ma nu leen stratégie boobu na le yooyu yëngalu ma moom nag dafa gën a féete ndaw. barki seen aliment magu magu ma wax la ko tey fii xam fi am njëkk a bëre njëkk a bëre nga boo teelee bëre rek ñu yaakaar mag nga wala nangam man 2002 laa commencé bëre ci làmb gi 2002 laa commencé bëre yaa ngi dégg am na mbër yu bëri yi fi nekkoon tey samay grand loon dama def ay boppat di leen suivre di leen seetaan te boobu xale bu ndaw laa ñu ma maa takk ngemb wala tolloo gu ma ci woon boobu maa ngi yëngu ci yeneen yaa nag moo dogaloon ni man damay nekk mbër damay yëngu ci wàllu làmb loolu sama destin la mënu ma ci dara yaa ngi dégg mais tey ay kii mag kii mag kii mag loolu wax ju yàqu rek chaque jour nga mag mbër foofu yaa ngi dégg de nga ñëw nga daan ko yaaka mag daan ko yenn saa yow nit mag la foofu daan la boo marjee baal la ku mag. waaw. Bombardier moo mag waaw Eumeu Sène ak ak Bombardier ku mag. waaw xoolal foofu pourtant Bombardier mag la de daan na Balla Gaye ñëw fii rek am Eumeu Sène waa kër génn fi an ma xale ga ñuy wax nan bàyyi yooyu affaire bi affaire de affaire gëm sa bopp la yaa ngi dégg affaire de sa bopp affaire yow si jëmmi bopp am sa fulla sa fayda yaa ngi dégg affaire de sérieux li ngay def ak sam nawle góor bu mu la gën a gore loolu la mais du affaire ay diw lay ñi ma wax man ku ma fekk ñoo ay jël ko ba ma goon ñëw la man lu ñu ko war a wax moom yaa gën a xam loolu yow yaa yow yaa li may laaj yaa ma gën a xam foofu yaa gën xam ne fu mu taxaw dama koy fekk incha allah. mu teg leen nekk ci ay dynamique de victoire di bëri si combat boo xam ne combat la day yem teg Zarko mu xam ne daa jóge ci victoire te Baye Mandione commencé tàmmal waa Thiaroye Géej teg la ay victoire Baye Mandione moom ci combat boobu mu jëm nan la ci war a ànd ak waa Thiaroye Géej ndax dinañ ca combat bi passé nga dugg ci làmb ji dugg si boo xam nii kon foogoo ko woon at bi ciblé nga téye sa bopp réglé sa combat ci normal ndax Baye Mandione ci prochain combat ñam doon àndal ñooñu noonu mu réglé woon ci biir géew lu combat bi laa da koy def wala bu ko Zarko gëddee day ñëw wuy si la Baye Mandione nar a indi la 15 mai gay ne Zarko mënumaa gëdd bàyyil bu ko Zarko ku dul Zarko mënumaa gëdd amul bépp mbër buy takk si ngeen ba taxaw sama kanam mayam dara lu may taraas yow amul bi la bu ko Zarko gëddee gëdd gëdd xaa boppam lay gëdd gëdd ba pare an yar daf nii ba pare an yar moom mais du gëdd baa ma ngoon di man ko Rasuul laay bu ko defee man déggoo ma jàmbaar ñëw dégg nga ma de combat bi moo moo war naa ne sax combat boo xam ba du naa frère nu jàppante di war a ne combat boobu ndax tey moom ni mu si ci combat bii ak man ni ma communiqué mu wax ma lu ma mus sa mbër mu sa wax ci àdduna la ma wax ab tapet na te moom ba ko ba mu bëjëlee takka ngay ma ba ko moom mos a tiim baamu joon nag ragal nga maa maa la ëpp doole maa la ëpp fit yaa ngi dégg maa la ëpp sañ-sañ maa la gën a wagal loolu la moo nee na moom moo waaye nag yooyu moo ëppale si gémmiñam la fii mais du si jàkkaarloog moom ngi mu la wax ma la wax de dama waxtaan moo tax ma lay wax man boo bàyyi xel yooyu boo gisee may wax dama koy ñaax pour li may wax nii ngir yàlla lay mu téye ko ba bu heure bi mu mu jàpp ni baa ma jonte bistel waxoon naa ko maa la ko doole ragal nga amoo fit maa la daax xeex léegi moom bër bu fifle mu taxaw dëggal boppam fas yéene dox sama kaw pour appliquer loolu laa bëgg moom maanaam dégg la pour mu bañ a war waxam moo tax moom ma koy fàttali loolu pour mu xam ni waxoon na bàyyi ma njoon nii wax mu sàmm ka foofu laay waxee mais boo ñëwee ba lamb ah. boo ñëwee ba lamb ji Zarko suuf ay tànkam ne du ngeen solantee tànk ngay wax kay waaw waaw ñu xam na ne bàyyi ma njoon arrière kon mu neex de waaye bu Zarko ñëwee mu am looloo neex sax combat balaa neex nga suul mu suul nga taxaw am bu bañ a am sa lewaatoo looloo looloo looloo dàqal ci combat bi mais combat li gën a bon ci combat sax nga dox ci kaw gay ne man man man ma fan yi passé roi de ngi koy nuyu muy xoyantaan maa ngi koy nuyu yàlla son borom yàlla aar ñëwaat champion la yaa toog na ay at ci at ba mu dëree ba léegi ba léegi yàlla moo dogal maintenant man maa ko daan te bu xoolee ci man mi ko daan ñaata defet la am ci làmb ak ñaata victoire la am ci làmb ak ñaata bànneex la am ñaata naxar na dellu siwaat yaa ngi dëgg nekkaat ci entraînement am jël li mu moom yaa ngi dëgg du baaba du baaba ñoon day bëre moom daan koo pare rek mu découragé non non découragé bu fekkoon di def euh, kun daan nga découragé kon du ma toog fii doona fi ñëw kon bàyyi naa bëri bu yàgg bu fekkoon kun daan nga découragé kon doo leen fi ñëw kon da nga naa bu ne baama ñoon ne waaye wax nga dëgg dëgg ngay wax mais boobu ba léegi maa ngi gëm yàlla suñu borom te xam ni fekk yaa ngi sag ruu dara mag dara jomb la ci àdduna ñàkk koo dara ci àdduna man loolu lay dund sama xol fekk maa ngi dund xanaa ma xëy dee ñu suuli ma ma xam ne yàlla tëj na sama buntu wërsëg jeex na génn naa àdduna rob nan ma jeex na kan ñu wax ne baama gol ah baama gol la woon jeex na mais pour le yàlla bàyyi ma fekk suma ruu gëm naa ne lépp lu sama borom mu góor di am yaa ngi dégg jàmbaar di ko mbaye muy fulla muy fayda ak ngar ak jom wallahi gëm naa naa am loolu mais yàlla bàyyi suma bakkan mu gaaw mu yeex nag incha allah maa ngi lay fay bu baax a baax. danoo xeex maa moom nga naan xeex. nañ ñu xeex waaw. dama xeex ak moom xeex bu métti laa xeex moom mu daw song moom mënoo ji mu dëkku te tëb song moom daanu ko. maanaam li nga a wax mooy chaque ah, chaque jour maanaam adversaire am da waaye déggoo la loo xanaa attirage xaw ma attirage loolu noonu ci gars yi tegee ne la man dépasse naa yooyu ay mer ci làmb man bu ñu teewoon bër bi duwaa sita dar koo timba di ma daggal saagi nday saaga bàyyi wallaahi koro laa sama sobo te xam ne affaire bi moo la affaire fan la bër bi jugee sama diggante moom ëffal foofu la affaire bi ne mais ay wax mais ay wax bu fekkoon mooy daan bër gaynde am na mbër yoo xam du daanu ci làmba de mais ñu bëri dañu def ni dañu gis ni njoon heure boo ko touché nga ko ne gaynde la ñaan nag mbër moo gis ni dóor ko tëf mu taxaw naa xaaral ma xaaraat gaynde ab joxe ak xeex kenn du ko waaj nga booy waaj pour ma bëgg a jox xaay di ko waaj damaan tey ba kaa ma xaaral bàyyi bu suba boo xamee du ma la ko jox ba suba tamit ne la am garaawul mais bu xetee ma tamit dóor bi waaw ñëw mais tey man loolu ba kër may bàyyi bëri sama borom góor ma dëgg boo boo dóoree boo boo nee benn moom di nga yóbbaale sama bos tamit dina ñëwaale moom incha allah waaw waaw. non da ab compte amu ci xam nga am na émission ba dafa ni baa di ko wax Zarko dama kaa xaw ci combat bi dama ko cee yërëm ci benn yërëm maanaam yërëm gi ma ko ci yërëm mooy li mu def ci boppam boobu di ko tëdd di ko yeewee yaakaar ni Baye Mandione mi muy bëreel mooy Baye Mandione man amoon ci ay nekkoon ci xat-xat gars yi di ko daan ba njib ba ba njib mu muy laajte ndax damaa ak bii bër mbir mbiri mbiri changé na de leer laa la wax te li mu war a def bu soobee yàlla yàlla mooy yor ndam moo koy joxe maa ngi koy ñaan mais sama sama sama yaa ngi dégg de li na sama xel ak sama xol ak sama sama gëm-gëm si kanam zone koo mais du moom. Baye Mandione boobu ak Baye Mandione bi lu leen wutalee njoon. daba kaa xam ci côté yëpp nag ci côté yëpp am na loo xamante ne su ma ko waxee émission bi day yàqu loo xam te ne ma arrivé te fii laa toog di ko wax te fii la xewee fi kër gii. parce que Baye Mandione danaan dem ak fitam kese samay mbaga ngi nii toog du ma bàyyi ma fen de. tey su fen ñu ne ma tuug sama ginaaw ma noppi ñu ngi sama ginnaaw di ma dégg ñoo yeewoon ak man fii guddi ak bëccëg ñu ngi fii xam na lépp. paa sama papa nekkoon na fii. dafa mel ni a ma ñoom dara dafa rek daa ma lay wax sama papa nekkoon na fii. sama yaay nekkoon fii. pour muy leer. mais su ma musaan ñoom ñoom ñoo may seede ñu ngi sama ginnaaw du ma dégg de su ma musaan préparé combat ñu ne baa ma ngeen ne combat ak diw combat bu nu mu rëy rëy rëy ñu ne des na weer wala des na deux mois. billaahi wallaahi taalaa sama papa feebar pare naa ci entraînement yi. daal day ñëw fi naan day def ay gëm ma oh, ay entraînement ko sa combat bi weer wi ñëw ma ne la saa yoo la man sama papa ji moo bëgg na ay lamb ay for de daw ma dem na si yoon man bi jug ñu ñu may dégg ñu si ginnaaw man nekkoon ci yooyu noonu barke rasulillahi sama combat bëri naa fi combat boo xamante ni jëruñ mën na maa seede ak Baye Diagne mii ma bëre ma ma ne ci préparation combat boobu sama papa mi nga entraîné benn clinique bu ne wax clinique mu ngi nekk Yoff boo duggee ci bi mbedd moom la nekk clinique Mbodj foofu wallaahi ma ma war a bëre ji bi ne laay bëre gi ma bàyyi ba ci kuddi gi ma dem fa mais ma demee timpa bi ci kawlal bi nii yaa ngi dégg dëkk sama loxo quoi waaw ah, sa combat bi kañ yàlla ma nekk papa man su ko lay bëri waaye papa combat bëgguma gi dara ndax yow. waaw mu nekk nag lu lu lu lu maanaam loo xamante ni yaakaar naa ne expérience la boo dund ak combat bi nag nga jug tey sax sa xel jëm si loolu noonu maanaam li la daan gàllankoor ngay ñàkk sa combat tey. tey yàlla def yaakaar naa ne kon beneen a yaakaar naa ne tey beneen beneen njoon tey lañ war a gis incha allahu rabi. yaa ngi ma bàyyi lépp yaa nga ma combat ma la noonu ma bëree ba nooy bëree damaa daanu de. billaahi wallaahi taalaa soolal ma bëree daanu du ma daanoo laat laat man na seede mooy son ménagère laat mooy son ménagère ma na maa seede laat Abdoulaye Ndiaye bi ma daanoo. may génn laa ñëw si man mbër di courage di courage ma ne ko laaj kaay ñëwal mu ñëw mu xëcc ma ne ko dimbali ma laaj ma ne ma ne ko mardi soo mel ni sama reliquat am na ma ne ko boo ma ooyee bi ñëw caaree fekk ma hôpital ba sama papa dafa nekk fa clinique ma ne ko maa ngi bëri naa daanu su ma songoo balaa maa dem kër ga fa laay jubal boo xamante ne du ma songoo damay dem ba ci moom ba mu gis ma ma doog a wàññeeku dem sangu doog a dem kër ga te boobu war ko resto daanu naa mais defet bi safu ma la dama am li bëri jiw moon te boo xoolee sama combat yi passé tuusu ma gëj naa tuus yow seetlu lu ma la wax wallaahi gëj naa tuus si làmb sama combat yi gëj naa bâtiment bii passé nii sa tuusuma bii nii de da woon nii rek mimantu nii gars yi ñoo bi ne ma doon tuus dama ne gars yi waaye jaru ko waaye bàyyi la noonu rek affaire la bàyyi la ma bëre pare rek gars yi non la woon affaire la woon bu kar hmm. dama gis na bàyyi ma njoon